Euh, salaamaaleykum man la amadu Ba Lompul sur Mer waaw euh, tey jii asalaamaaleykum maa leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant tey jii euh, li li ñu dajale fii tey mooy dañoo am naxar surtout ci wàllu pêche fan yi ci gannaaw ba ñuy waaj a tabaski dañ fay jàpp benn bateau ban ko jàppee ñu jàpp ko fekk capitaine bi foofu ci biir négocier ak ñoom ba wàcce ko te loolu ñu def noonu mënoon na taal bato mënoon nañ cee taal bato taaluñu ko nu xam nu amoon yaakaar ne Sénégal pays de droit la nu jàpp capitaine bi wàcce ko bañ ko wàccee nu jébbal ko service de pêche mu fanaan fa euh, weñ sax wokku ko nu téye ko respecté ko nu woo autorités yi nu ñëw nu waxtaan ak ñoom nu bind suñuy rapport loo xam ne yàqal nañ nu minimum xam naa ne ëpp na cent millions loolu leer na ma man lu ñu yàq parce que nag état bi fi mu toll nii jàpp ne moom ah, pes moom lu ñuy wax ay caaxaan la dañuy teg dil te ñun xam nañ liy matériel ñoom ñoo nu gën a xam sax liy matériel géej di jar. nu yàqal nu valeur bu 200 millions man loolu ba ñu defee éthique bi ñun xayma yàqal nañ nu 200 millions nu bind. te kenn ki ba ñu bind sax kenn ku ne dañ ko ne wàññil wàññil li nga waroon a bind binduñ ba ñu bindee ba ñu demee ba foofu état bi moom def effort waa DPSP. ñu bind ñoom ñu fexe récupérer la leen bato bi war a fay mu fay leen ko mu bàyyee ñoog bato bi ñu wëndeel ñu tëgg ñu wëndeel xool joxuñu ñu dara ci suñu ak suñu yelleef te ñun li ñu def mënoon nañu jël mënoon nañu jël bato bi taal ko wala ñu ñëw fii téye bato bi ñu ne du dem lu dul dañ na fay mais dañoo respecté jàpp yaakaaroon ne Sénégal am na droit yaakaaroon ne Sénégal dëkku droit la wala droit mu ngi fii dox mais dañoo salfaañe suñu ak suñu yelleef dañ koo salfaañe bato bi bato chinois la ci liñ ci mën a xam dafa dafa yàq dafa yàqal fii ay acteur de la pes lu tolloog cent pilotes la yàqal fii dagg seen i mbaal ba ñenn ñi noonu la ñu teere dañu teer xottu gaal indiwuñu dara waaw xam naa mën naa ci cité tey jii am na ñoo xam ne laal nañ leen dese nañu mais mën naa ci cité lu mot fukki nit ñoo xamante ne dese wuñu dara danu mujj di leen jox par benn nder ñaari nder ba tey fii ñu taxaw ni jotaatuñu seen matériel te liñ leen fay li ñu li ñu fi joxe comme ndàmpaay bañ ñëwee kenn ku nekk cent mille francs la ci am cent mille francs lan la mën a jënd li ñu nar a xeex ak moom mbéjum kanam kenn ku nekk xam na ne euh, borom a koy fajal boppam ni ñu def ba wàcc capitaine indi ko ba fii mënoon nañ ci taal bato te léeg-léegi gis ngeen ba mu amee ñetti fan mbokk nañu Fass booy gaal ba mu diig ñooñu tey bu amuloon ay acteurs xarañ wala nit ñu mën dog dañu dee waa Fass ñu ngi ñu ngi may dégg beneen yoon bi nag mooy léegi mayatuñu leen dara ñun li jële laa la wax euh, gox mbaaj baas Bass ba ci jeexalu Conakry jàppoon nañu nekk benn fépp fu bato wàccati daañu jël yéeg ci gaal taal bato bi de lu ñu ci góobe gar ko ku ñu si jàppa ñu dem tëddal ñu ñëw ñu wax léegi ñu ne nañu libéré chinois bi ñu ne nan la ñuy libéré chinois bi ñu ne ñu léegi ñi nga xam ne bind nañu ay demande indi ko service de pêche bato bi da leen yàqal na ñu def loolu rapport ñu jokkoo inspecteur mu indik léegi ñu ba libéré chinois bi am keneen euh, deuxième capitaine bi tam ñaar la ñu wàcce ci bato bi ñu bay chinois bi ñoom ñu yóbbaale ko Dakar ñu jël suñu gaal ñu delloo beneen waaj sénégalais bi léegi ñu def noonu ñu jékki-jékki ñu woo ñu Dakar ba ñu ñu woowee dakaar ñu ñëw fekkal ñun li ñu li ñu kay woon maanaam ba ñu defee étit normal ñun xamante nañu. même bu fekkentee ne man dama ñëw ma déclaré sans sans fiile bu Pape Sow ñëwee dafay xam ne gayoo mii kat li mu yàqar lu mu dee dee war na manqué sans fiile ñu dindi li manqué sans fiile yooyu ba ñu ko defee nekkaan ay walooru deux cent millions ñu jékki-jékki ñu wooñu ba ñu ñu wooyee ba ñu demee ñu dem biir BPSP ñu ne ñu léegi da ngeen di négocier ak borom bata baa ngi nii yu à la traité ñu ne kookoo moom bato bi xoolal loolu lia la tudd waaw sénégalais la moom nekkoon DPSP waa dekkoon na DPSP non jàpp ma santé bi mu ngi ci suñu document yi ñu fa jëlee mais lia la tudd te nekkoon na DPSP foofu la àlla traité moom ba pare xam nga kooku agent de l'état la woon léegi agent de l'état yi nga xam ne ñoo àlla traité ñooy jël jóge fii dem siin di def prête non ji fi indi bato yi léegi nag ñun benn message la ñuy laas euh, bato boobu ba ñu fa demee xam nga mënoon nañu taal bato bi mënoon nañu dowal bato bi bi mu teer mm-hmm. defuñu ko ñu ñëw wàcc chinois bi ci tey ñëw indi ko fii jokk autorité mais gis nañu ne loolu amul résultat ndax lan moo tax amul résultat état ba dafa dem borom bato bi dafa dem verser trésor 37 millions yi nga xam ne moom la war a fay état loolu verser naka trésor moo ñun nag ñu del si waa DPSP ñooy état xam nga ñu ne ñu dem leen négocier ak waa ji dem leen négocier ak waa ji te négocier bi sax dañu ne en tout cas waa ji lii la indi 12 millions 500 la indi ma ne ko sa kay sa carton bii demal nga delloo ko fànk jële woon loolu laa ko wax ci premier jour noonu lañ dellusee ndax amuñu droit jël ba ñu dellusee ba acteurs yi xam ne lii mënul jaar fu nekk ñu soogaa acteurs yi ñoo soogaa dem jëli xaalis ba ñu ko séddee ku nekk cent euh, cent mille francs la ci am. léegi ban message ngeen di lancer. message bi ñuy lancer mooy fi mu toll nii même tey tey guddi gii tey bu ñu fi gisoon bateau chinois dañuy dem dañuy teer bateau te à partir aujourd'hui daañu dem déclarer que brigade de gendarmerie même capitaine de la région bi fi ñëwoon daañu dem déclarer ah, ah, message boobu la ñu bëgg. jàpp capitaine bi teer ko si kaw. bi ñu ko indee fii si kaw nag autorité bi li mu waroon def mooy xool dégâts matériels yi nga xam ni bota bi def na ko fii yëpp mu taxaw bota bi man fay ñooñu mais ñoom liñ si remarqué te gis ko si ñoom bota bi fay na leen seen xaalis xam nga jébbal leen ko si keesu trésor mu des nag pêcheurs yi nga xam ne tey noo jàpp bota bi te ñoom la bota bi yàqal ba léegi ñoom lañu waroon jot jotu na ko loolu nag yaa problème si miim réew nuy lancé appel nag di wax ni suñu autorité yi nu bàyyi benn xel parce que bët bu rusul toj parce que nit mënoo nekk sénégalais li nga xam ni mool yi moom na ñuy nappee bu nappee ba ñëw bokk ak population bi nga ñëw fekk ressource boobu siin gii nga xam ne tey dafa ar dafa tëj géejam ni benn bota dootu fa napp ay autorité fii dëkk si fii Sénégal am ay ndombal tànk si réew mi di dem ba siin dafa jëlee ay bota def ko ay prénom def ko seen tur indi ko fii xam nga nu ñëw si réew mi di fi napp loolu nag yaa problème te loolu bu indi bu yàggee mën na indi catastrophe boo xamante nii si réew mi kenn doo xam foo waxee Ce qui s'est réellement passé cette année-ci à lompre comme l'année dernière, la situation qui a l'année dernière s'est produite. Il y a une situation euh, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Ici à Lompre-sur-Mer, on, a ce qu'on la campagne. Et cette campagne, c'est une campagne très profiteuse. Les poissons, pratiquement, il y a beaucoup de poissons à cette période. Les bateaux aussi profitent de ce moment pour venir ici pêcher que les pirogues peuvent pêcher euh, à partir de la plage jusqu'à 12 km en mer. Mhm. Les bateaux ne doivent pas pêcher au-delà de, au-delà de 12 km. Mais ce qui se passe, les bateaux étrangers, les navires étrangers chinois, qui ont ici des noms sénégalais, parce que le bateau qui a été attrapé ici récemment, il s'appelle Amadou. Comment un bateau chinois peut, s'appeler Amadou C'est carrément On ne peut pas comprendre cette pratique qui date de vieille époque. Même les colonialismes ont changé de méthode. La brigade de surveillance de lompoul sur mer a effectué des visites nocturnes. Auparavant, ils avaient capturé deux bateaux. Ces deux bateaux, lorsqu'ils étaient en compagnie du, du représentant de la commandante de marine qui est ici sur place. Il mission. Il a pris les photos. Il nous avait dit carrément que ce bateau va être sanctionné. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de nouvelles des sanctions. ils ont pris le problème à bras de corps parce qu'ils ont dit que l'État peine à régler la situation, les pêcheurs vont aller en mer. Ils sont sortis une ils sont allés en mer, ils ont capturé un bateau, un bateau chinois, ils ont capturé un capitaine chinois un capitaine sénégalais. Ils les ont ici au bureau de la service des pêches, sans blessure, ni violente, ni rien du tout. Poliment, ils ont respecté la règle, parce que la règle dit que si vous si vous trouvez une personne qui en situation flagrante, ne faut Ils ont détruit les filets de pêcheurs estimés à plus de 200 millions. Plus de 100 pêcheurs ont été victimes, mais ils ont dédommagé 85 suivi les règles. Parce qu'ils les avaient donné une enveloppe de 12 millions pour partager entre les pêcheurs de l'homme pour mer. Et nous savons parfaitement bien qu'une seule pirogue pour dépasser à travers les matériaux plus de 12 millions, c'est possible. Et nous demandons à l'État du Sénégal de prendre en charge le secteur de la pêche. Parce que nous avons vu le ministre de la Pêche, il ne suffit plus du secteur de la pêche. Il est en sa politique euh, Qui est une entreprise minière qui exploite les zircons. Nous n'avons pas de sang, nous n'avons pas de mer. Mais qu'est-ce que nous, allons vivre On ne tous prendre les pirogues pour aller en Espagne C'est impossible. Vraiment, nous demandons à l'État. Maintenant, nous vous demandons solennellement à l'État du Sénégal, nous allons vers des élections Le juillet, la jeunesse de l'homme pour mer va s'exprimer de la façon la plus positive. Si vous n'êtes pas avec nous, nous n'allons pas être avec vous. Si vous voulez qu'on vote pour vous, il faut vous soucier de nos problèmes. Merci beaucoup.